ne nag du samay kaddu kaddu Sénégal yëpp la parce que man je fréquente tous les stades du Sénégal wax nga wax sànq ñëpp sélection bu nekk am préparateur de gardien te ancien gardien équipe nationale ñoo fi nekk yow nga nekk un homme de sérail carnaval Fall amoon centre yàlla def mu ànd ak Youssou Dabo dem fële ci Azam Tanzanie est-ce que yow aussi jàppoo euh, tu dois euh, te faire entendre pour nga dugg ci sélection parce que Matar defal nga football lolu, bu ñu waxee Matar xel yi dem ci Kolda Diourbel Mbour Dakar Dakar su ma sax lim club yi Matar lan ngay wax sénégalais yi wax loolu bon dama dañoo baax rek dañoo baax rek am xel ci man peut-être euh, am na benn moment xam ça fait deux ans cela kenn gisuma ci Ligue 1 bi parce que préparateur gardien laa bon maa yoon ci académie Aliou Cissé deux années après ma ñëw toog Kolda bon ñoo ay nit la boo xam nit ñoo xam ils sont reconnaissants envers moi peut-être dañuy xool ne football col football Sénégal équipe nationale ba am fa place ma di remercier di len ñaanal jamm au fait euh, pour moi, je me suis dit que ne lu jot yom mbirmu yalla la parce que je pense que né pour ma daa équipe nationale jarul ma ko fep parce que football bi tamet yalla yalla ma si jappalé du sama man man man kese ba tay tour bu ma ci am ma am ko mais je pense que né lu jot tay peut-être ñu jité football football Sénégal bi ñu nekk ci équipe nationale peut-être seen xel a nekkul ci man bés bu seen xel nekkee ci man dinañ ma wo ñu ngi dégg parce que ñu ngi lay seetaan. waaw xel a nekk ci man seen xel bés bu nekké ci man xamna dina am fenen fuñ may duggal ma liggéey comme nu may wax gaay rek équipe nationale ñëpp ci bokk ku ci sa wërsëg nekk rek da nga ciy dem. mais nga jaar fa jaar nga fa légui dama bëgg may ñu benn anecdote bo xam mësu ko dund en sélection. bon anecdote bu li ma gën neex moy sama première sélection avec l'équipe nationale A moy bu ñuy dem def séjour bi à Clairefontaine. bon bobu Tony mu ngi préparer préparé. waaw mu ngi préparer ligue bi mu ngi doon ligue des champions bi ak Monaco bon j'étais là-bas Clairefontaine man m'a doon def science. Euh,